Bienvenue sur Salam Vision. Mesdames et messieurs, voici quelques synthèses de l'actualité à la présentation signée Cheikh Oussafou. Parlons d'énergie, c'était hier au Cap des Biches. Une centrale de gaz a été, dont la première pierre a été posée hier en présence de plusieurs personnalités. Euh, disons, cette centrale est financée entièrement par des euh, privés euh, sénégalaises euh, d'une somme de 120 milliards de francs euh, CFA. Euh, parlons de politique après les manifestations douloureuses du mois de mars dernier. Euh, plusieurs jeunes de Kolda ont été libérés par le procureur. Ces jeunes euh, sont accusés de fomenter des casques et des édifices publics appartenant au, au gouvernement. Par de politique, les jeunes de l'appel de Kaolak, Ostoton, ont décidé de tourner le dos à ce grand meeting qui sera organisé Euh, par les apéistes week-endisent-ils ces jeunes, ces millions euh, devaient être injectés à l'endroit de cette jeunesse euh, sénégalaise. Nous allons nous rendre à Fatik. Les Fatikois sont inquiets et angoissés par des séries de vols dans des mosquées. Imaginez-vous, 14 mosquées de Fatik ont été cambriolées par des voleurs. Euh, ils lancent un appel aux maires et aux autorités administratives et locales pour tenter de trouver des solutions euh, concernant euh, cette euh, situation. Parlons toujours de politique. Euh, à propos des élections locales qui ont été reportées euh, sinier, les organisations des droits humains lancent un appel aux autorités de respecter le calendrier électoral. asalaamaaleykum mbokk yi ñu tënk ko si kàllaama Kocc Barma euh, am na centrale bu mag boo xam nag ñu ngi koy démb la teg xeer bu njëkk ba fële ci Cap des Biches ci teewaayu ay sénégal yoo xam nag ñoom ñoo def seeni i si centrale boobu xam nag euh, euh, bu ñu toogee fekk atum deux mille vingt deux deux mille vingt trois jëm kaw courant dootul ñàkk fii ci diwaanu Sénégal. li jëm si mbirum politique ndaw nag fële ca Kaolack mooy ndaw APR yi ñoom nag dañu wan benn meeting. semaine bii di ñëw ñoom nag ànduñu si tey ànduñu si ëllëg xaalis boobu ñu jël di ko pasar pasare war nañ ko euh, delloo njukkeel xale yi nga xam ne ñàkkum xëy si réew mi. kon daal la ñuy doxantu am na ay xale yoo xam ne dañ tegoon ay loxo fan yii passé ñoom ñu doon nag toj Auchan yi toj oto yi administrative auto administration bi ñoom nag jot nañ leen bàyyi demee ki leen doon bàyyi moom mooy le procureur bu euh, Kolda. Euh, ki nga xam ne moom mooy Olivier Raoult di médecin France boo xam nag xelam màcc na. Euh, si mbirum euh, virologie moom nag nee na am na am euh, na yaakaar que Sénégal jël nay matuwaay yu mag sëkk mën a xeex xam nag mooy corona virus yi yeneen xibaar mbokk yi jërë ngeen jëf ba ëllëg incha allah